délégué daa mel yaa ngi ci wàccaay wi de. lii ko xool xam ne mooy dugub. Hmm. lii di ko dagg di teg camion yi ñëw ñi koy chargé moom la ñu woowee ngóob. Hmm. te ku ne xam ne ne octobre bii mooy xelkom. Hmm. te incha allah ñu ngi leen di soññ le treize ak le quatorze incha allah ci ngóob mi. waa kër Serigne Saliou yi. waaye nag bu nee xelkom. xel yëpp dem ci sama mag ju màgg jooju sama mag ju sellu jooju sama mag ju yiw jooju sama mag ji nga xam ne nu mel ci yoonu Seexul Xadim te di ko liggéeyal ginnaaw suñuy bàyyi moom jàngal nañu ci lu bëree bëree bëree bëri muy Cheikh Amar di jàmbaari Serigne Saliou ndax kenn du ni Xelkom kenn du ni waa kër Serigne Saliou sepp ci seex Amar donc ñu ngi woo ñëpp di di di wax ne nanu ko daan defee incha allah nu ko raw nañ ko defee man Modou Amar incha allah dinañ joxe ay numéro téléphone yoo xam ne képp ku ci bëgg a dem di nga dinañ la fi ngay ñëw ñu teg la ci oto yóbbu la nga dem xel comme liggéey li sa Serigne Saliou liggéeyal sa bopp ñibbisiwaat mm. ci barkeb Serigne Saliou ci ndigalal sama mag ju màgg ju sellu jooju di Cheikh Amar ndax kat ñëw dara def daara xel comme te it Cheikh Amar lu nu lu nu ginnaaw suñuy bàyyi mi ñu nampatat ci yoonu Cheikhul Khadim yoonu Serigne Saliou Cheikh Amar danoo danoo gën a woon yoon bu baax a baax a a baax donc ñoo ngi woo ñëpp fàttewuñu bàyyiwuñu kenn kenn kenn ngóobum xel kom ji incha allah dagg dugub ji ñëw na la treize ak la quatorze la quinze bu ñu fa mënee fekk baax na ndax affaire yi daawul sax def sax benn fan léegi mu di xër nañ xër goo xam ne xel kom ji léegi nekkatul sax benn fan. lañ hmm. koy dóor mu daaru ko nekk dem sa yoon kon gis ngeen ko dugub jaa ngi nii. Hmm. incha allah ñu ngi jox ñëpp rendez-vous. 13 14. ñu dem xel comme liggéey li Serigne Saliou ñu ñaanal sama mag ju baax ji ñu ñaanal Cheikh Amar suñu borom yàggal ko tëwér ñu ñaanal Cheikh Amar suñu borom kàttanal ko ñu ñaanal Cheikh Amar suñu suñu borom roof ko kàttan doole ak doole ba mu mën a liggéeyal Cheikhul Khadim mën a liggéeyal waayam ju baax ji di Serigne Saliou kon ñoo ngi woo ñëpp di fàtt di woo tamit Wally Seck nga xam ne nu mu nu mu mel tey xel kom ji liggéey gu mu liggéey xel kom da ko ko da ko ko may. di woo ñi nga xam ne ay waa kër Serigne lañ te Serigne Saliou defar na leen te dimbali na leen ñu jublu ci xel kom ji incha allah ku mën a joxe ay bis na nga joxe ku mën a joxe ay oto na nga ko joxe ku mën a yóbbu ndox loo waaye mën a yóbbu na ko yóbbu xel kom liggéeyal Serigne Saliou. jërëjëf jëfaa Serigne Saliou. jërëjëf